ok ñu dem si the most hit song bi nga xamante ne even ñoo xamante ne ñooy Chinese sax dañooy nekk si woy bi recently ñu ngi gis ki nga xamante ne mooy ST mu ci kawam <laughs> ay soxna si ragalu ma kaa <laughs> lan mooy si man idea of that car song uh, idea bi nag xaw ma sax fa la jógee man ak small boy ñoo ñu ngi woon fii sa NV Thio and then dem kër <laughs> loolu ñëw but ñu ko yàgg plan daal it was planned for a long time just comme song bi time mu génn was just time mu génn but yàgg nañ ko plan yàgg nañ ko cook xam nga it was in the pipeline for a long time mm-hmm. nga ne life is turn by turn it is my turn seen xol bon xol kana doon bon foofu noonu te ah. yëguñ ko ah xaw ma sa ah. moo am na boobu <laughs> obviously <laughs> <laughs> obviously li yëpp xamoon ne ne Uche at that school mu ngi doon respond to uh, Jizzle but nit ñi ne Uche dafa soxoree woon Jizzle because of moom dafa jël wéyi Jizzle yi di ko ceeñaa di ko wéy pour bëgg si bës naka nga gisa waxi nit ñi bëgg si bës bëgg bay first of all jëluma songam um, di remix it's not remix okay it's different yow yaa ngi wane Stone Boy man dama dama mi xam ah, nga lan la nekkoon di def si songo référence xam ah, nga moo dafa ñëw mu binda Uche Uche nii man dama la wane comme duma ma ture sa tur. Mhm. waaye lu ma def nit yi yëpp dañoo xam ne yow la. do you understand si man creativity bi la woon art bi mhm. nit yi ko gisee ñu ko gisee mii I want xam ah, nga comme nga bëgg a wax nit still moom moo xam ne comme man la kii man la nekk loolu rek la woon bi pare was as direct i koona koona ma bëgg a moo xam ne moom la uh, Jizzle bindoon na si Twitter account uh, your father did it again I mm. gave you five years ungrateful youth mm. naka nga gisee woon wax boobu and what is the reason why mu you an ungrateful youth ah xaw ma ni yow defaraloo ma dara nga ne ma I should be grateful for what Gambia yëpp xam ne am the one who made you bro so it's just what it is parce que suma papa bu ma xam man suma papa bu ma xam. moo de take care of me suma papa suma papa moo de jox lu ma war a chop as a youth <laughs> nekkul man youth moo de jox suma papa lu ma war a chop <laughs> so yow xoolal kan moo nekk papa kan moo nekk doom si statement boobu. lan moo ko dara ba su dee loolu la feel comme ku nekk ak feelinam loolu la mm. feel si diggante boobu noonu pour def. Mm-hmm. waaw loolu yàlla man tam lu ma feel pour def def naa ko. it's just what it is. Kone dafa mel ni bi daf ko won. ah moom start still. Momo ko start. voilà. waaye foog na papa domi yi hulo ñu xuloo de. ah ko start. ah Yo papa yo nga ne papa nga. Mhm. Yo yow lo hela ne comme yo ya ne am mag nga si unity <laughs> Ba yo yay sani kàddu <laughs> si sa <laughs> Ba yo kon yow nga ne ko after your so called success Yo yow papa bu responsible. Eh, nga ko after your so called success the first thing you thought of was me. ah kon yow la njëkk a ah, thank you my fans for coming out and supporting me. Mm-hmm. waxuloo yàlla jërëjëf. Mm-hmm. <laughs> nga ne Uche nga nga exactly one hour minutes after sa show boy come on. mu xalaat la come on boy come ah, <laughs> pare nga pour liggéey wala ki nga xamante ne mooy Jizzle. man I'll work with anybody God say I'll work with. ndax su taxawaatoon tey di nga liggéey ak moom. su ñëwee mu apologize. mu apologize kon si apologize dafa am lu mu la def lu la def ba may apologize. <laughs> fay ma nekkuma si na ñëw mu apologize. mu wax Gamé waaw nii la fa demee waruma I don't even want people to hear the full story it's not necessary. wala xam nga fi Gambie la ah, comme ni lu fi lu fi defar. at least because of di gis ne jamono ji ku mi ngi wax moom évite ndoo ñu ci xam moo def gisul tey fu mu nekk daf ko génn xam nga. Hmm. but I guess yow soo nekkee da particular mooy leeral nit ñi ne ak lii. Hmm. more happen. So man, definitely that I just niti dinen gina muna hamla. Yeah, this is what is happening. But I'm then, not the person to to just. I'm not the person to let her lose. I'm not suffering. <laughs> Nakumari suffer. I don't have any. I don't need nothing from Jesus. Nothing. Basically, absolutely nothing. Yeah, y'all not done jam, mom, y'all not aga, pumbuga aga. Understand? Mm -hmm. Billahi wallah, I'm saying that with all of my heart. How would I understand? But when it comes to me, <laughs> like I don't need nothing from you, bro. Mm -hmm. You get what I'm saying? So, but sa i am new ñu bari ñu doon wax ne, amoon nga fi can't ki nga xamantene Who Hussein Dada, you will be yomba lol. Lower waral nga am problème I ki nga xamantene moy jiwu? But Dada came out. Te jiwu Dada came out on public because TV. Because i te ñu ne bëgg Dada ba gënon na was because of I'm on the fa. saagante yëpp ay yooyu noonu mm. waaye comme man nit la ma a human being you understand what I'm saying but if God can man ak lu ma dee def yàlla yëpp still every time su ma demee si yàlla ma dee baalaal so who am I mm. dara dafa ñëw on public TV on QTV mu apologize the same person ku doon saaga mu apologize nga ne man du ma ko baalaal mm-hmm. boy come on boy kon man ma façon nit la boy <laughs> non boy come on kon daal ah <laughs> ki nga xamante ne mooy sa doom bi ah ci seet nga xam ne yow yaay papaam mu ne nga ñëw applaudir ko parce que moom daal fa yàlla lay dundee moo ko waate ah kay <laughs>